la loolee nag doon loo xam te ni l'islam euh, da ko dàq waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi tamit dàq lu ni mel de mbir yi daal lu naturel moom moo gën loo gis nañ leen teewlu ci reportage bi ñu ko la ñu dem ca Bamako ak euh, lii di wàllum coup d'état gi fu mu ne ni nag E, coow la daal di ne ku daal di ne kur ci taskatu xabaar bi di Karim Diakhaté xam-xam màcc e, ci wàllu wi yëkkati na ci ay kàddu gis ne daal loolee nga xam ne moo xew jamono ji foofee ca sous région ba lenn waralu ko lu l'armée bi nga xam ne bëgg nañu teg loxo ci nguur gi waaye di buum ak di buumin nañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo li ci yéen kaay yi lañ fas yéene yëkkati jotaay bi ñaanalante mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñëw ak yéen ci faram-fàccee gi

andi euh, ba ci kanam tuuti ndax nag li nga xam ne moom mooy quantum horaire bi am na lu bari loo xam te ni mateewul euh, ndax nag euh, li nga xam ne moom mooy report bi dina tax ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi ñi gën a mën a càmbaraat waaye tamit gën a mokkal li nga xam te ni moom lañ leen di jàngal ci programme yi loolu nag di kàddu yoo xam te ni kii directeur des examens concours moom moo ko daal di wax ñu teewlu ko moom ma Mamadou Mokhtar Ndiaye kàddu yamu dénk Pierre Edouard Faye daaw dafa nekk euh, année bu doy waar mais malgré Sénégal dafa bokk ci réew yu néew yi nga xamante ni ñoom dàquñu woon examen yi euh, dañu tegoon ay plan yoo xamante ni tax xale yi jàng ci école bi surtout xale yi nekk classe d'examen ak également dispositif apprendre à l'école donc ci kër gi donc ren xam nga kon bu ñu commencé jàng jàng bi mu ngi mucc ayib mais xam nga dañu doon jàng ba janvier donc euh, janvier lañ commencé ñu ci bëri programme officiel terminal

yi euh, donc ak euh, classe de CM2 yi ak euh, classe de troisième donc chaque fois nag ministre bi dafa doon woote depuis trois semaines surtout bi ñu nattee mu xool programme bi mise en œuvre bi fan la toll voilà donc interroger yenn éléments yi ci la ni bon jox naa leen digal ngeen xool pour CFE entrancième ak BFM naka la ñuy def pour pousse ko pour que njàng mi xaw a mat parce que en fait du question def examen rek mais quand def ko ci anam yi nga xamante ni xale yi xam-xam bi ñu war a am am nañ ko loolu pour BFM ak pour entrant sixième loolu euh, réflexion bi daanaka pare na li ci des mooy jébbal ko monsieur le ministre de l'éducation nationale jëwriñ Mamadou tala pour mu jël décision signer ko peut-être quoi entériner ko ou bien mu valider ko maintenant pour baccalauréat xam nga ñun euh, même su fekkente ni suñuy élève lañu élève terminal yi professeur yi ci ëpp professeur éducation national lañ ñu wax nag ci lu jëm découpage administratif bi ak euh, ndaw ñi nga xam ne nii amuñum euh, xëy liggéey yi nga xam ne yeggul ci ay xàll yoo xam te ni doroon nañu ko di ko defar ak euh, terre bi loolu yëpp nag jural askan wi nekk ca banlieue bi ay jafe-jafe tax nag ba leader bu mouvement banlieue avenir nekkoon tamit directeur de l'office pour l'emploi de jeunes daal na yëkkati ay kàddoom foofee ca banlieue ba nag ne lu ni mel ñaaw na wala sax métti na lool ci ñi nga xam te ni ñoom ñooy askan wi jot na nag ñu yëggali chantier yu bari waaye tamit gën a taxaw bu baax a baax ñi di askan wi Théodore Semedo ni nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee fan yi découpage administratif ba ñu jot sax am na ay bokk ma mel yu mel ni Dalifort wala Jidda Caaroy Kaw dafa war a dem Géejawaay ki nga xam ne moo jiite mouvement banlieue avenir MBA nee na àndu ci tey àndu ci ëllëg te ku ko def dina jàmbaarloo ak moom te daal ne teg benn slogan touche pas à Pikine. Pikine bi ñu bëgg sax saxee découpage bi naam naam d' accord ci parce que Kër Massar dem na ba jéggi dayoo d' def ko département ñu ne nag yéen yeneen nooy neex yi mais ñun loolu soxla ñu Pikine Dalifort kenn du ko yóbbu fenn mais ñu bëgg bàyyi dix-neuf commune Dakar jëlaat commune Dalifort bu ko yóbbu Dakar Guédiawaye mais duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg si nag wàllu xëyu ndaw yi njiitam Boubacar Ba bi nga xam ne moo nekkoon directeur office de l'emploi des jeune de la banlieue moom mu ngi wax ne tey dañ ko war a organiser ba pare daal di sanc ay centre incubateur daal di gunge ndaw yooyu nga xam ne ñoo war a jëfandikoo xëy yooyu ñuy jël ci communes yi la ñu dëkk encadré programme bi ñu inféré tali yi nga xam ne dañ ko tàmbali te parewul ci yoonu caaroy jëm Malika waaye tamit mbirum teer bi jafe-jafe yu muy andil askan bi ak ni ñu yoree yenn mairie yi loolu tamit Boubacar Ba jot na si wax di ñaawlu bu baax yenn autorités yi nga xam ne dañoo ñàkk fulal banlieue bi di alerter monsieur ne ko ñun gis nañu travaux yi ñu démarré si banlieue bi ça fait quatre ans ñu bàyyi Pikine si dafa jafe-jafe yi mu nekk nit ñi di sonn ba si teer bi instruction yi mu mujjee joxe kenn appliqué ko pleuve bu ndox mi nag bi dikkee dootuñu am si jàmm et il n'a rien fait dama moom ren ah, bu soobee yàlla dañ dem élection bëgg bëri bañ bëri mais dañuy exiger bilan commune yëpp Pikine est malade Pikine dootu nekk vache à lait bu kenn njiitu mouvement banlieue avenir Boubacar Ba taataan na kàddu yooyu gannaaw bi nga xam ne dafa doon janoo ak taskat xibaar yi si bokk moomeel bu Pikine Nord suñ ko yéen fii si diwaan Pikine Nord Théodore Semedo pour Walfadjri jërëjëf Théodore euh, Semedo jamono jooju nag njiitu réew mi Macky Sall euh, daal dina am ab plan bu bees euh, bu ñu ko xaymaa ci ay koppar nag toll na ci juróom benn fukki milliard doon nag loo xamante ni daal dina ko commandé ngir ay dem ak dikkam ci ci réew tugal yi ñu teewlu ci kii di Serigne Gueye miy ñëwaatal ci wàll wi. gannaaw roppalaanu jiitu réew mii di Pointe de Sangomar te xam ne ñetti président yi di Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade yépp jëfandikoo nañu ko Pointe de Sarène moomu jën di yóbbu njiitum réewum Sénégal ci atum 2010 la réewum Sénégal jëndaat roppalaanuk Nicolas Sarkozy muy A319 CJ moyen courrier njëkkoon a daw ci atum 2002 ci fanweeri million ak ñaar ci xaalisub euro di tolloo ak fukki milliards ak juróom-ñett ci xaalisub CFA la ñu def ca jagalaat booba ñu bëri ci Sénégal ca jamono jooju rajo àddu woon ci jaaree ko ci jumtuwaay xarala yi gannaaw ba ñu ca déggee kàddu ku yoroon communication njiitu réew mi ñett ca àddu doon xamle ne am na leneen lu gënoon a doon farata di jënd ab abiyon ngir njiitu réew mi ci lu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñeent ci gafakaak réew mi. moo ne Pointe de Sarène taxaw na ay yoon yooni yoon ci ñu ko doon jagalaat président Macky Sall muy ñibbi ci Sénégal te àndut ak avion am mos naa am te ab dimanche la woon bu mu doon jóge ca sommet bu CEDEAO te jaaroon ca Ouagadougou bisab keroog ab yongu naataangoom bu réewum Niger moo ko indi woon ci ndakaaru Pointe des Arènes paanati na beneen yoon bis boobalee président Macky Sall ngi doon ñibbisi ci ndakaaru joge ca Congo beneen abiyon moo ko indi woon abyon bi dafa màggat boole kook di yóbbu xaalis bu bëri ci jagal ak jagalaat bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki yor gouvernement bi nekkit jëwrin ji ñu yor gox ya goxaat yi di Omar Gueye mi xamle ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet bi ñu dëgmal abiyon bu yees tàq dana remplacer Pointe des Arènes ñu koy tuddee A320 Neo muy jar juróom fukki milliards ci xaalisub CFA contrat d'achat bi di kayit gi xaatim ne jënd nañ ko sax ñu ngi ko signé woon ci weeru juin 2019 boobule avion di A320 neo nouvelle option moteur di avion yu ñu yeesalaat ci wàllu moteur yi bokk ci njabootug A320 yi nga xam ne Airbus moo koy defar di ab roppalaan bu bakkane mën a yeb balu toll ci ñaar téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk jërëjëf euh, Serigne Gueye ñu wax nag ci euh, juróom-ñetti dëkk dëkkaan yi nga xam ne ñu ngi ci commune bu baaba Garage ñoom nag lii di euh, wàllum ndox la ñu gisatul ñu ne Aquatec nag moom moo leen ko teg Eh, ñu des si euh, daal di tëjee ak taskatu xabaar yi di ñaaw lu ni mel nee nañu daal mbir yu ab saboté dëgg moom moo làqatu ci euh, lu ni mel ndax nag lu bari ci seenu euh, mbay mi nga xam ne nii yaakaaroon nañu ko lu ci bari kon naax na saay te sax na ñoom ñoo ñëw di askan wa nekk foofee ca xewee ak dëkk-dëkkaan yi ko wër yëpp bëgg nañu nag ci njiit yi ñu daal di ci jël ay dogal ci nu mu gën a gaawee kii di Cheikh Thioune moo yore seen kàddu ñu teewlu ko ak Mamadou Makhtar Sarr ñuy wax ne élément bi yembagul du ñàkk nañ ci ñëwaat suñu yeneen i jot jotaay yu xabaar lu jëm ci euh, mbirum suuf si ñuy saax saaxee ca fi nga xam ni moom mooy euh, Banling askan wa nekk ca Mbour euh, ñoom nag fu mu nekk nii dañoo génn daal di ñaxtu ndax askan woowee daal nee nañu seen i ay suuf du ñu nangu benn yoon ñu koy foqati seen ay loxo di leen jaay doole ñoom nag li ñu gën a li leen gën a métti daal moom mooy li jëm ci li nga xam ne ni moom moo jëm ci préfet ba ndax nag nee na ab liste la boo xam ni daal nañu ko fësal ngir daal di wax li nga xam ne ni moom moo nekk seen naqaru xol te bëgg nañu ñu gën leen cee jàppale bu baax a baax ñoom askan woowee yëkkati yi lee kàddu dénk ko Thierno Daaf ci biir reportage. ngir fësal seen ñàkk ànd ak ñu tong-tong suufu déggu mbaalin gi askan wi yeewoo ci diiwaanu mbuur ngàlloo nañu seeni fulaar yu xonq amal doxu ñaxtu géej gi bu feesoon au muy dem ci kër yi day bëtt euh, lagin bi chargé lagin bi mu dem lagin bi dem na fii ba caajaay njaga ñaaw ba Fatick bon léegi fatt nañu partie géej gi léegi mu des euh, euh, li nga xam ne boo jógee pont bi wuti sañcu daal foofu bu noor bi soree nii ndox mi day ñiis dañoo sonn nag ñun dañoo sonn dañoo tàyyi yuuxu nañu gisuñu ku ñu wàllu xeex nañu gisuñu ku ñu wàllu ci gis-gisu askan wi déeg gi nguur gi moo ko moom waaye li leen jaaxal mooy at yi yëpp ñu ngi tongtongee suuf si ñu ngi ko njëkk a def euh, deux 2014 ñu ñëw xeex ak ñoom ba waa environnement wu Thiès ñoo ñëw jàppale ci ñu dindi borne yi ñu toogaat ba le 2 mars bi mbas mi duggee Sénégal ñoom ci lañu ñu profité ñëw ci biir lagine bi démorcel li ñu fi dagg ci ay parcelles mën na ay centaine de parcelles loolu ñun ñu def découvrir ko woote wàllu bind préfet bind maire. ngir dakkal lu nu mel nag ñoom askan wi teg nañu ci loxoy préfet bu Mbour. seeni doléance yi ñu dëxëñ ci benn këyit. mémorandum bi liñ ci liñ ci tënk lépp jëbal ko préfet mooy que nañu arrêté morcellement yi beneen bi ci topp liñ fi jot a def muy ay ay onglet ay bâtiment yu ñu commencé yëkkati te teguwul ci yoon ñu dindi ko troisième chose bi mooy ñu fexe nu ñu draguer lagine bi mu continuer di charger ndox nu mu doon mel ñëpp mun ci jëriñ loolu mooy suñu xeex tey mooy suñu xeex ëllëg ñu protéger ko nag ba lagine bi mu jeex bés ni tey kenn bañati ko touché. ñoom askan wi jël nañu baaraamu tuuma joxoon jaraaf mbuur ne lu ji njaat moom mooy njaat ci tong-tong gi Fallou Sylla nag weddi na lépp ba tëdd ci suuf mbuur Thierno Daff Walfadjri teelu xibaar yi doon naa leen ko junj di la xew fi mu nekk nii ca Louga gannaaw nag ba ñuy wax ci euh, mbirum Khady ak nañu ko faatee ba ne nupp euh, mbir a ngi nii xew fa di musiba ndax ab liir la ñu jël daal di ko sànni ci ab foos loolu nag ab taalibe def ko ndax nag dafa mere ki nga xam te ni moo di sëriñ daara ba Oumar Kéré ci fukki fan ak juróom ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai faat nañu ñaari nit fii ci Njàmbur waaye commissaire Lamarana jàlloo ak i nitam yàggul dara ñu teg loxo ñaari nit yi nga xam ne ñoom nañ jàpp ne ñoo taqe ci ñaari musiba yi bu fekkee kii ñuy tuumaal génn ko àdduna Khady Diack bi police jàppoon na ko ba ñu placé ko sous mandat de dépôt ajjuma ji ñu génn ñoom takk der yi ba ñu fa jógee tegoon nañu loxo tamit ki nga xam ne moom nañuy tuumaal ci génn ko àdduna bébé bi nga xam ne matul ñetti weer di jigéen te ñu ko ci ab foos ci ab daara internat bu nekk ci kër Serigne Louga di doom sax ci Serigne daara bi nga xam ne moo jiite internat boobu kin ciy tuumaal nag te polis teg ko loxo xale la bu góor mi ngi am lu toll ci fukki at juróom di jànge sax ci biir daara jooju ci kanamu enquêteurs yi nangu na ne moom moo faat bébé boobu xew-xew yi mi ngi amee ci àllarba ji ñu génn yamook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru me ci boori njolloor moom xale bu góor bi dafa xaar ba nga xam ni ñépp sukk nañ ci ndab li ngir añ nañ ca la yolleekoo ndànk dem fekk fi yaay ji teraloon bébém bi ci benn mat matelas muy nelaw mu daat koy jël dem ubbi foos ba dugal ko ca bébé bi sax gannaaw ba ñu ko gisee ba génne ko ci foos bi ca ba ñu koy évacuer hôpital ca la génn àdduna bañ ko laajee lu waral mu def lii moom xale bu góor bi li mu xamle moo di dafa bëggoon a fayu ci sëriñu daaraam bi nga xam ne da koy faral di tere muy génn te it daa bëggoon a génn ci nu mu gën a gaawee ci daara ji nga xam ne mësu fee bëgg a jànge gannaaw nag fan jébbal na ko àttekat bi ci talaata ji li ñu koy toppee nag moo di rey nit Oumar Kayre Louga Walfadjri Omar euh, Kayre ñu wax ci leneen euh, loo xam te tamit euh, xew na fi fan yi di kii di Lotali Mole di doomu congolaise boobee nga xam te ni faat nañu ko ci agression fële ca Grand Yoff ay ñoñom nag fu mu ne nii ba léegi mbir yi bàyyeegu leen ndax nag tiitaange dëgg la ñuy am bu ñu dox ci mbedd Ndakaaru yi Moussa seen demoon seeti leen agression bi nga xamante ni congolaise bi di Lotali Molette dañ ko ko defoon semaine bi ñu weesu ba mu faatu congolais yi fare ci Dakar nag tiit ak njàkkaxe la am dañoo jàpp ni li ni mel see dund mi ngi ci xotu gerte Kima Veronica nekk kenn ci ñoom. ma on se sent am na ay waajur yu bëgg jël ci seeni doom ñu ñibbi gis ngeen dayo bi mu mujjee am te loolu du luy saafaraal ndax ku nekk da nga fee ñëw ngir ut. psychologiquement on est on est traumatisé. mi yokk di naan sax ay waajur yu bëri dañoo taxaw temb ngir delloo seen doom yi ca Congo. tiit warul tax ñu bàyyi lépp dañoo war a ut ay saafara ngir kaarange étudiants yi nga xam ni dañoo bàyyeekoo ci yeneen réew yi. Ivan Kelly nekk congolais bu nekk ci Dakar ay at moom sax moo nekk coordinateur yu congolais yi fare ci biir Dakar. ñu nag nekkuñu ñu ci sécurité aw jafe-jafe la nag boo xamante ni day laal bépp doxandéem rek boo xamante ni euh, yaa ngi ci yeewoo fii ci réew mi waaw dëgg la nag xam nañ bu baax a baax ni agresseurs yenn saay euh, étranger yi ñoom ñooy doon seeni cible privilégié des agresseurs. ñoom ñi li sax di yokk di naan naam li xew xew na waane tax ñuy tiit saa su nekk. mais on devrait pas en fait laisser la peur. tiit warul tax ñu bàyyi lépp dañoo war a ut ay saafara ngir kaarange étudiants yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo ci yeneen réew yi ku ne gis na dañu ñu fiy daj métti na trop. les étudiants étrangers surtout on est. nous sommes. fu mu ne nii nag dañoo amee tiis ak njàkkare waaye li ni mel nag taxul benn yoon ñu mujjee ragal. à communauté congolaise bu nekk ci biir dakaar nag ñi ngi interpellé ñaari réew yi di Sénégal ak Congo ngir rek ñu taxaw temb xoolaat bu baax seen sécurité ngir ñu mën a wéyal seen activité dañoo jàpp ne nii seen bakkan mi ngi ci xotu gerte. jërëjëf Moussa seen jamono jooju fële ca Ndar Géej ñi nga xam ne ñoom ñooy fidèles euh, chrétiens yi daan nañu amal nag foofee ca euh, paroisse Notre-Dame de Lourdes ab euh, cérémonie boo xam ne dañ ko jagleel Vierge Marie ndax nag dañ ko waroon amal ca fi nga xam te nii moom mooy sanctuaire marial bu Popenguine waaye foofu lañ ko mujjee daal di defee ndax nag li nga xam ne moom mooy mbas mii di Covid 19 foofee nag li nga xam te ni moom mooy Abelus Gomis daal na fa borox ndoolu def fa ay ñaan yu am solo Abelus ñu teewlu ay kàddoom ak Gabriel xuufa doon na euh, lu ñenn ci sénégalais yi jublu loolu ngir liggéey ñi ñuy bëgganteel muy mbir bu ndaw si ñu

ngi xumbal bu baax euh, Mariama Moussalami Notre Dame de Popenguine di Notre Dame de Lourdes itam te jàngu bi ah, di ñu ñaan ñu ñaanal njiitu réew mi ñu ñaanal itam kilifa yi nga xam ne ñëpp ñoo ànd di liggéey ak moom looloo tax ñu yëkkati suñu ñaan di ñaan kilifa réew mi mu jàppale ñu lool ndaxte gis nañu suñu église Notre-Dame de Lourdes màgget na lool te soxloo nañu ñu defaraat ko mu mën ñu dimbale ñu mën a daje foofule màggal yàlla te nag ñaan itam Mariama bi mu wan ñu yoonu selaay bi yoon bi nga xam la ñuy mëtalee yeble yàlla yi ñu mën a soppante bu baax te defar dëkk bi le ñu gis itam suñu armel yi armel yi nga xam ne nekk na armelu cosaan ba tey te ñu fay eh, suul suñuy néew yi suñuy ndem si yàlla yi am na fenn fu daanu ci mur bi looloo tax ñuy sàkku ci kilifa yi nekk file ci ndar ñu mën ñu jàppale ndax ñu mën a defaraat loolu lee waaw am na ñi nga xam ne ñi ngi joxe dara ndax mën a taxawu takku bu baax ndax defaraat loolu le ndaxte armel yooyu le mooy suñu dëkkuwaay bu ñu yàlla di fekk jëlee fa yóbbu ñu asamaan te may ñu ci sellaay ba looloo tax ñu war a sargal suñu ndem si yàlla na mu waree te men tam jox leen sutura toppatoo leen ndax ñoom bu ñu nekk ñu yàlla ñu mën ñu ñaanal ñu nekk ci jàmm itam réew mi gën a jëm kanam ñuy sàkku ndimbal ci kilifa yi nekk file ñu jàppale ñu ci ñaan ñu leen ko waxee woon sànq sëriñ Tugeek liggéeyante gi ne xuus si jamono ji ñu gis nañu bari nag ñu ngi koy def ñenn ñi daal di ko wekk ci mbirum mbëggeel waaye ñeneen ñi gis ne daal du lu mel mu naturel moom moo gënoon a rafet te sax lislaam da ko aaye kii di njàkki meng njàkke mbay defal ñu ci reportage. xarfa xuufa doon na lu ñenn ci sénégalais yi jublu loolu ngir liggéey ñi ñuy bëgganteel muy mbir bu ndaw si ñu dajeel di ñaw lu loolu. ah man de personnellement rafetluwu ma ko parce que damaa xam ne nit da ngay naturel daal naturel gëm sa bopp naturel gëm sa bopp rafetal sax. bu fekkee ne da nga dem wuti maginoir noire wala nga dem lijjanti dara wala nga dem ci sëriñ pour nit bëgg la alaa kulli aalin day yàqu day jeex ndax lépp lu loxo def rek dina am instant boo xam bu fa eggee dafay dañ. xaalis ba ñuy yóbbu ci sëriñ yooyu mënoon na leen jëriñ leneen di kàddu bàmba xaalis bi ngay def ci bi ngay dem ci pour def ko ci sëriñu tariyaax pour fay ko boo ko defee sa bopp am na lu mu la mën a fajal ak fi réew mi toll xaalis amul ku ne yaa ngi dundul mettit kenn gisul dara kenn yaa ñiy liggéey ñu ñiy maye mayeetuñu ñi daan saraxe nebatu boo amee xaar bu yóbbu ci sëriñ. mu wuteeg ñooñu ñeneen ñi. Abdou moom di ñu xamal ne gisul lu ñaaw ci bile mbir. bu dee li ko tax a jóg mooy yokk mbëggeel. ci benn benn moment boo xamante ne nii pour jublu lu baax kese. pour ma mën a am ak yow ay njoboot bu barke daal loolu moom dara new ci mais bu dee. liggéey nit ngir mu bëgg la doon na lu bari lool ñu bëri di dem seeti sëriñu tariyaax yi muy ñi ñu dajeel. ca Bamako la ñu euh, jëm wax nag ci lu jëm euh, coup d'état gi fu mu ne ni nag. mu mel ni dara leeragu ca daanaka ñu ngi ci guddi gu bësetagul ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mari bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi di Karim Jaxate ne nu mel dara waralu ko du larme bi ndax bëgg nañu teg loxo ci nguur gi di buum ak buum miinum leen neexee Karim Jaxate lañu teewlu ay kàddoom li xew actuellement ni euh, Bamako dafa mel ne rek li ñu naan euh, tarix bi daanaka dafa mel ne luy ñëwaat daal ci li ñu tàmm gis euh, foofu ci Mali ci liy bëri ci ay coup ak ay mbir yu demee nii ndax li ñu jàpp président wu bi Ba jàpp également premier ministre bi Mokhtar Wane yóbbu leen fële ci garnison wu Kati militaires yi def ko dafa nekk loo xam ne ñu ngi ko doon séntu parce que xëy na démb lañu doon annoncé gouvernement bu bees bi mais jàpp nañ ne fan yi passé yëpp amoon na problème yu bëri yu amoon ci diggante président wu transition bi ak vice président nga xam ne mooy Assimi Goïta di militaire yore woon force spéciale yi te diriger woon transition bi bon bi waa CEDEAO ak comité international bi exiger que militaires yi donc bàyyi benn président civil euh, militaires yi nangu ko mais teewul aussi ñu woon lool ci déjà li ñu changé conseil national de transition bi amoon encore gouvernement bi ci am aussi seen représentation bi doyu leen woon bien que ñu ngi ci woon mais bu bees bi ñu gis ne ñaar ci ñu ëpp solo ci colonel yi bokkoon ci kiiwu transition bi muy Sadio Camara yore woon défense bi ak Modibo Koné mi yore woon sécurité dañ leen ci génnee te ñooñ nag dañu nekk ay colonel yoo xam ne dañu am baat lool lool lool fële ci camp militaire bu Kati te foofu nag daanaka pratiquement décision yi bëre fa lay jóge boo leen ko fàttalikoo sax militaires yi ñoom bi ñu leen di wax ne transition bi dañuy bàyyi président civil dirigé ko kii di Bandaw nekkoon militaire bu retraité d'accord ñu ci woon tellement mais dañu obligé woon rek ànd ak li communauté internationale journal bi wax ak CEDEAO bi ñu nangu ne donc bu 18 mois yi jeexee dinañ accepter donc bàyyi civil yi ñëw njël nguur gi te ñoom aussi duñu mën a présenter wu ëllëg pour doon président ci loolu nag aussi fan yi yëpp dañu gis ne ba ma ko amoon na ay problèmes yu amoon au niveau même social parce que am na grève bu mag bu Union nationale des travailleurs du Mali UNTM doon def boole ci également mouvement du cinq juin kontaan ñu woon ci nu transition bi doon doxee ba ñu ko doon revendiquer lu bëri Sokel Maïga doon na génn di wax tout le temps annoncé démb dañ leen ci def jox leen ci place bu am solo ak seen benn parti bu ci am solo der mu tudd URD mais ci loolu nag aussi gis nañ ne ay friction yu bëree amoon ci diggante président transition bi Ba ak Assimi Goïta dafa dem ba dugg également ci mbiru ni ñu organiser doxalinu réew mi parce que travail yu bëri aussi kontaan ñu woon également ci gis yenn militaires yi di am yenn moyens yi am solo ñoom également ñu am ay problèmes sociaux ñi koy revendiquer sottiwul donc ci loolu yëpp nag moo tax lii nii am te nit ñi njortoon nañ ne bu moytul fa la ñuy mujje léegi nag li ñu mën a séntu mooy militaires yi certainement ñu exiger ne Mokhtar Wane bi président Bandaw bàyyi woon mu defaraat gouvernement am